Euh, waxuma wax bu oyof bu ma la nee xaar bi ñu xaar ak muñ bi dafay mën a am fu mu yem ndax ku nekk xam na ne daaw ba ren li ñu fi lim yépp ci ñu ñu war a faj ci ñu ñu war a dàmp ci enquête yi ñu war a def ak lépp li nga xam ne lim dañ ko ci mémorandum bi nga xam ne moom lañ joxoon sëriñ bi muy lu jàmp ndax yaakaar naa ne ñaari nit suñuy wax Ah, kenn ki nga sant ko li nga koy sant ba nga ko ko digalee ca saasa la def la nga ko sant te moo ne yombul woon de ndax nag dañ ko séq ak ñoo xam ne sunuy nawle lañ te sëriñ bi bi ma koy wax ni ko de laa wóolu moo tax ñu jox la sunu yëf dama ko ni ñooñu fa nekk ca m d ay universitaire lañu ay intellectuel lañu ay ñu xam réew mi lañu xam nañ kan la ñuy gëm ak kañ la ñuy gëm te du ñu vendanger seen combat. vendangé wuñ ko yëpp dañoo muñ rek ngir respecter kilifteef loolu moo tax ñu joxoon ko ko loolu moo tax donte ñu ñu yëg nañ ni génn nañ ko ci mais dañuy dellu ca moom ñu ko ñun yow lañ joxoon parce que gisuñu keneen waxunoo keneen donc moom moom ñu joxoon loolu ba tey du ñu dind daraja dañ ko joxoon dañuy xaar ba mu dellu si ndax bañ ko ko joxee lam ñu santoon ci si lañ ko lañ ko def te yombul woon waaye kañu jàkkaar lool moom it xaw ma sant nañ ko xaw ma santuñu ko waaye moom daal non seulement defu ko waaye nag ak tooñ sax la ci jële nag di di di tooñ loolu moo tax euh, wax nañ ko ko leeral nañ ko lépp luñ leen luñ fi wax fii rek wax nañ ko ko ah mu ngi dellu moom it ci kilifa gi defe naa buy dellu see la mu ñu wax di ngeen ko yëg te bu boobaa ci la ñuy xam nan la ñuy doxal